بالمصطفى بحر موسى كان منفلخا كما به روح عيسى لسماء سماء بالمصطفى بحر موسى كان منفلخا كما به روح أعزني الباقي من الشيطان عند الممر وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله وهو كفاني سوي الملاهي مصليا مسلما على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان والتمكين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورد الله عن أسنى خديمه على هو الشيخ أحمد بامبا وعلى قدوتنا أمس إبراهيم فال الشيخ محمد المنتخى ابن الشيخ محمد البشير يالنا في يàgg lool te wér waaye sëriñ Cheikh Jëmm Fall yàlla na fi yàgg مبوكي te wér mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet DMTV ñoo ngi leen di siyaar di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di nuyoo ko siyaar ñi nga xamante ni ñoo ŋànk liggéey bi sëñ Alaaji Ñing ay itam di siyaare baax a baax suñu directeur sëñ Abdoulahi Diop ñu ngi siyaare mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ànd ci liggéey bi di leen euh, ñëwaat yi seen ñaareelu jotaay lépp dem nekk ci bis bi nga xamante ne bi mooy euh, bisub gàmmu muy weeru gàmmu wi ñu nekk sunu jotaay tey nag mooy diggante sëriñ bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ku wax sëriñ Tuuba xaadim rasul sa xel lay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag loolu li ko may nag mooy liggéeyal yonent bi sallallahu sallam waaye itam liggéey boo xamante ne bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sàkkoon ci moom raama rasulillahi min ilahi kaw ni xadimuhu wa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo sàkko ci sunu borom ni ko ahmadu laa bëgg mu liggéeyal ma waaye nag ba tax na mu daal di sol dàllam ni dama koy liggéeyal daal wax ni aqdimuhu ila duxulil jannati daaril xaraari wal muna wal minnati mooy dinaa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba may sàngoo suuf ba may dem àjjana waaye ci liggéey boobu nag mu jaarale ko ci tajdid mu yeesal sunnaam sa nam ko xewxee woon lil Mustafa nawaytu maa yu jadditu sunnatul xarra inni ahmadu waaye itam ba tey daal di ak moom daal ni ko baayaatuhu bi fu aadi ina lam tarahu qalbi wa aqdimu ayni wa aqdimuhu lillahi muftarida mu ne jaayante naa ak moom lu jiitu sama bët di ko gis waaye nag di ko liggéeyal ci jëmm yàlla ji rekk tax waaye bokk na ci liggéeyal bi mooy ak tagg waaye itam ak li nga xamante ni mooy ak julli ci moom mu demee ci mooxi bu day wax ni salaatu sitta bi mati sitta tatihi bata matisa yi juróom benn weer yu njëkk yi da koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benn weer yi ca topp mu tagg ko yonente bi sallallahu taala alayhi Wasallam. sallam moo tax muy wax ni madaxtu al xalqi min al muharramin ila intisaafi al aami sa takarumin nee dina tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li commencé ci tamxarit ba ci weeru rajab mu mel ni kon juróom benn weer yooyu kon da ko cay tagg kon juróom benn weer ya ca tege nag mu daal di julli ci moom daal di sëlmal ci moom daal di lahu salaati wa min rajab liqit misil hijjati ni'mal muntajib dan dina julli ci mom waye tam dina selmal ci mom li commencé ci rajab muy baraxlu ba jeextalu wéru tabaski bi kon mu melni ni la ci waxoon ca ga ca muwahibu confirmer nako muy salatu sita bi mati sita tatihi ba tamaati saay waaye waxam nañ du ma ca yam dama koy boo rek roy waye gogu waye da ca bolet manam ak beug mu mel ni wax na fut bari fu mu wax ni maxat mahabatel muxtaaru sayidina xubbul maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abban xadiman lahu ni bëgg naa yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba tax na mënatuma bëgg ay doom ay tam mënatuma bëgg aw ñooñ mënatuma bëgg am koom mënatuma bëgg dara daal wax ne nag sama deret nag sama ñooñ jox naa ko yonente bi sallallahu wa sallam mu di njot kon mel ni bëgg foofu la yam wax na ne ni jumlata maali wal midaadi wal xalam hadiyatan lil Mustafa baabi niam nee na sama mbooleem alal waaye tam sama mbooleem daa waaye tam sama mbooleem xalima jox naa ko addiya yonte bi sallallahu taala alayhi wa bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla mu ne ki nga xamante ni tax na ba bëggatuma maanaam bëccëg bëggatuma li nga xamante ni mooy Gudi mboolem bànneex yooyu yep soxlaatuma ci dara waaye tam lu melni ni ak xaalis ak ak li nga xamanteni moy nar naaru góor soxlaatuma ci dara waaye nak liggéeyal bob bi nga xamanteni moy mooy liggéeyal sallallahu alayhi wasallam neena kat sunu borom moko ko sahala lil baqi bi an yal khadim wa qitmati lil Mustafa bi sunu Yadum, neena sunu borom mi aji def ji moma sedel kan ni man ahmadu kat maay kat yonte bi sallallahu taala alayhi wasallam waye nak liggey bobu day nek mbég mo xamanteni day sax amul fu yam dal di wax ni kon wafaqani khairul baraya ah bariyati ahmadu wa rafaqani khairul baraya muhammadu neena na yent bi sallallahu alaihi wasallam moy gën gi min def deppona na ak man man ahmadu khadim waye tam yemul ci waye na and na ak man man ahmadu khadim dal di wax ni ilal ilahi qad wasaltu wa an rasulillahi man fasaltu neen fasunu borom agna fasunu borom andakan ak kan bi sallallahu alayhi wasallam ndax neen mag yonent bi sallallahu alayhi wasallam duñ tàqali ko yon yoon toujours rek mag mom ñoy nek waye bëgg gi mu ko bëgg taxna ba wax na ni dammi fidaun li khuruj dammihi wa maradi sifaun li da'i jasadihi neena sama deret moy fegu deretam manam bu deretu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nare genn na sama deret genn waye bu yonent bi nare febar man na febar man ahmadul Khadim waaye wax na ni xaddi jaaltuhu turaaba naxlihi yaa laytani laxadani min fadlihi nee na sama lex bi laltal naa ko ci ndëggul tànk yonent bi sallallahu taala alayhi wa mu ne aka neexoon nag mu génneeku ma nee na xaddi wiqaayatu li rajulil mujtaba wi shawkatin wa ma yudaaha aqraba nee sama lex bi moom laa laytaaye ndëggu tànk yonent bi sallallahu taala alayhi wa bu fekkee ne dem na ba li ñuy wax jiit ndar na koo fetti neen du ràndale jiit ji da koy jël la xam lal ko ci li nga xamante moy kaw jiit ja jiit ja yonent bi jaar ja lepp luy jamet bu jam yonent bi sallallahu alaihi wasallam non lay def neen da lexem bi jam ci jëmam ji waaye yonent bi mom dara duko duko duko ko du ko du ko gàllankoor kon mu melni jangal yoy bok boo bëgg moom foofu lay am da na wax ni sifa jismi wa sifa u muhammadun sallallahu alaihi rabbu neena li safara sama yaram wa li safara sama xol nee na mooy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen boo ko tuddee rek sama xel ak sama xol ak sama yaram day saafaraw ndax feebar ñaar rek moo am feebaru yaram ak feebar xol nee na ñoom ñaar leen saafara jërul dem ci ab docteur muy bind ordonnance ak yooyu waaye tuddal yon bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu daal di saafaraw na ni muhammadun sikruhu unzi wa mafrahati wa nuuru xalbi wa rahati wa ashai dégg nga nee na tudd turu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mooy ma wéttali man ahmadul xadim turu tudd turu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mooy sama mbégte moo may kontaan loo waaye itam mooy sama leeru xol waaye tam mooy sama nooflaay ci loolu laay dund waaw kon mu mel ni euh, bu nu gisee yonent bi bu nu gisee li sëriñ bi bind kon bëgg foofu la yem moo tax it tagg yi mu ko doon tagg moo tax dañuy wax ni sëriñ bi dem na ba foo xamante ni bu yëkkatee li nga xamante ni mooy xalimaam rek tey gis yonent bi daal di mooñ ci na sama waji ji ci man mo tax dañuy wax ni daan bi da na dogal sax daawul bind ay safara gëw ndax sa bu yëkëte xalima gi rek yonent bi day japp ni mom lay waxal ci bëggu tass yaakaram mo tax ni waxal ni iza katabtu tasamal jamilu wan xaada fi khidmati jamilu ina sa bu ma yëkëte sama xalima di bind rek ne na gis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daa di mooñ waaye may ommatal ci liggey bi lepp luy tar lepp luy rafet kon mu melni ni moy diggante yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak ki nga xamante ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul waaye tag gi kon tagg ak liggéeyal bi moo tax nee na sunu borom jël na lépp loo xamante ni maanaam jafe woon nañ ñu fi jiitu daal di koy jox mu ne radda illayya alla si xat fata min al xuyóori wa misaali fata nee na lépp loo xamante nit yàlla fi jiitu woon jafe na leen neen sunu borom wekkal na ma ko waye nee anu ku melni man ahmadu nee amatut waxat na ni waxat na ni wajjahta lii maa laa yasaalu ajaba fi abadin li salihi najaba nee sunu borom joxna ma lo xamanteni du deñ mukk di yem nit yalla yu kaw yoyé ndax li sunu borom defal motax tax ci ñaare bo waxe yenn serigne bi wa ki xal fa bëgg bokalé wala déet fekk la ko sunu borom may euh, moo tol nona waaye waxam na ni baana kulli man lahu wilaya kaw ni rabbil baraya aya nee képp am tok wilay xam nga ni man ahmadu kat man suñu borom teef suñu borom le moo wax na ni ala lasi si jaalani li kaw ajubatan minhu li kulli kaw nii ki nga xamanteni mom moom suñu borom moma def man ahmadul khadim moy kimtan ci mboolem planète yi planète yi nak du aduna kese waye ci kaw ay mulkoog malakut yooyu nga xamanteni nit yàlla fay rañaan bo fa man ahmadu ma nekk kimtan ka waye waxal na ni kulliyati mu'jisatun akarat wa xayru xayraat la daya duqirat sama lepp ay kiman la ca lepp lu yew lepp lu tawfiq rek sunu borom daxañ nako ki sama jëmm ji waaye nee na bu la jaaxalee mu ne yan xaada ma la yarahu alimun wa laysa yanhu umri masalimun nee sunu borom jox nako lo xamanteni muno jang jang jang jang jang ba xam dayo bobu du lo dul ni jang sunu borom jox la Eh, jox ko ko moom rek moo tax it mu sëriñ boo ko nawet waxtaane sax ñu dëkkale la fenn fi nag ki lay bokkaale fekk serigne bi li ko sunu borom jox moy li nga xamanteni mo kawé lol lool xel yi waaye wax na ni subhana man bil mulki xatta farada wa xaadali maa xaadali wa afrada mun tudna naa ki nga xamanteni mo nek nekk kenn ci ngoram gi kenn ñaareelu ko mooy sunu borom kon fo tawxiit fenn na fi len sunu borom momé moo ma jox loo xamante ni man rek maa ko am man ahmadul xadim te yooyu yëpp lu ko waral mooy liggéeyal yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallama mu mel ni kon liggéey boobu nag moo tax suñu borom eh, tan daal koy tappal garaatub mu nekk ku gën a kawe ci mbooleem way liggéeykat yi mulkul ali baaxil xadim jaalani asnal xadim liman lahu fadlun yadum wasaanani an xidami sunu borom mi nga xamante ni mooy aji des di waaye itam borom mi nga xamante ni mooy aji njëkk ji nee na moo ma def man ahmadul xadim ma gën a kawe mbooleem ñu doon liggéeyal yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam ji tagg xeet yooyu yëpp man maa leen gën a kawe kon mu mel ni loolu moo nekkoon diggante sëriñ bi ak yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam mu mel ni waxtu bi moo na xoj waaye xam naa dañuy wàccee wi sunu kàddu te wax ne lu ci jub rek sunu borom la